alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi maam alaaji abdullahi radiallahu anhu dinaa leen wax ne boroom xam-xam bu mag la ñu bari ci ñiy wax ci jaar-jaaram dangay gis ñuy juum ñu bari ñuy bind ci moom dangay gis ñuy juum naan maam alaaji taaliful doomam yi ñoo taalif wala mam alaji tere mi dafa lak waye man de ci sama bir gëstu ci mam alaji abdallah xamal nako lum dede ñaar fukki talif ak juroom ñet yo xamne mo len talif sen tour tur yaa ngi nii maam alaaji abdoulaye moo taalif téere bu wax sharhul qulub mo talif talif na tere buñu wax ak qasida bo xamne mu ngi ko dënk ci harafi wallahu ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا تالف نتيري ممكن تدي مفتاح الخيور ومغلاق الضيور تالف نتيري بنيوخ وسيلة المريد إلى حضرة المريد تالف نتيري بنيوخ الوراثة التجانية تالف نبين قصيدة بغات ويا قصيدة بو أم باطن بوخم خمنا شيخ التجان لكي دون تق ndax maam alaaji Abdullah, dafa amoon cër lool ci cheikh ahmad tidiane radiyallahu anhu wax nañ ne bi mu demee faas ba ñibbisi fukki atam yu mujj ci dundam Ken mësta gis fu maam alaaji binde saafara jox nit mbaa mu jël téere jox nit ne ko am takkal soxla boko ko wax rek danaan cheikhu tidiane def na ko mbaa mu ne cheikhu tidiane defal loolu nam ko waxe rek noonu lay amee amul leneen lum ciy teg ci mbind walla maas mm, siiw na itam tasarrufaat yim daan def jinax jooja nga xam ne sonaloon na ko ci téereem yi bi mu ne Seexu Tijaan jàppal ma ko rek dañu gis jinax ji xaawi koo ca kaw ne fàtt daanu ci suuf daldi sedd guy benn waayit jël na fasam maam alaaji yeew fasam mu jël fasam moom bàyyi ko fas wa fekk fasu maam alaaji wi fiñ ko yeew mu gaañ ko waa ji nekkoon ku bew fii ci kaw la féttéerlu lool ndax nit yàlla yi fuñ toll yàlla dana leen nattoo ñu leen bañ ta defuñ leen dara waaja maam alaaji yónnee ci moom ne wax leen diw na yeew fasam wi waay maa ngi nii fasam wi gaañ na sama fas wi bañ ko ko waxee mu ne leen xawma ci dara yeewuma ko te moom bu waxee sax ni sama fas wi def fasam wi danaa ko def noonu bu ngeen demee ngeen wax ko ko xam nga kuy wax loolu maam Alaaji Abdoulaye dangaa repp waaye bañ ko ko waxee mu ne waaw baax na ba ñu xëyee mu daldi ne fas wi nag tey bu ko kenn yeew yóbbu leen ko ca mbooy ga ba muy dem mu ne ko demal dénk naa la Seexu Tijaan fas wa dem ah waaja mu ngay tappaas maam alaaji yëgut ne tey fas wi eh, dañ koo préparé fasam wi dajeeg fasu maam alaaji wi rek bi mu jarati ñu daje rek fas wa daal di rey fas wale fasu maam alaaji wi rey fasu waaji boobu fas wa dee nag mu daal di yëg loolu ànd ak ay nit ñoo fekk maam alaaji fi muy jàngale sëriñ bi gis nga ni sa fas wi def sama fas wi ma walaa ji bëgg ko yar ne ko xawma ci dara la wax te bo waxe rek ma def la ni sama fas wi def sa fas wi manam mu koy won ko ñak teggin gi nga doon jaay la lay won jarta jaay wajoju, joju bu su kérok la ko yalla jindi mu daldi di daldi di tuub jéggulu ba jël wirdu ci maam abdullah pour woon la rek ne ku amoon cër la ci Cheikh Ahmad Tidiane léegi nag dafa am xasida boo xam ne xasida bii man mii di wax ak yéen sax yéex naa xam ne maam Alaaji Abdoulaye Niass moo ko taalif te mokkaloon naa ko te xawma woon ne maam Alaaji ko taalif ndax Fuuta Tooro Dagana ba Bakel presque mat na 700 kilomètres Fuuta réew mu yaatu la ñu bëri dañu yaakaar ne bu ñu nee Fuuta as ndëkk su ndaw la mais Fuuta ay dëkk nga fa yoo xam ne lu dee dee am na douze mille habitants ci biir dëkki Fuuta yi te fuutalum lum dee dee man nga faalim lu mat sept cent dëkk yoo xam ne bokkuñu ak seen ay moroom dëkk yi ci Fuuta yépp amu ci benn dëkk buy lal gàmm mbaa ziyaar mbaa ñuy teertu sëtu Seexu Tijaan lu dul ne xasiida bii may wax moom la ñu koy teertoo xasiida bi mooy nan yaa cheykhana ahmad tijjaani yaa amali yaa xayra man warisa nabiya maljaana léegi nag man ca foofa laa ko mokkale woon man pour rek yaakaar na kii ci benn sëriñu tukkulóor moo ko bind gannaaw gi laay gëstu ba xam ne téere bii maam alaaji abdoulaye ñas radiallahu anhu moom moo ko taalif mu cay wax ne yaa cheykhana ahmad tijjaani yaa amali yaa xayra man warisa nabiya maljaana يا وارثا خاتما إمام من حشروا من الأكابر والأقطاب تجانا لولاك ما زاقت الأقطاب معرفة وغيرهم مسجلا منكره مانا فأنت أعلمهم بالله أكثرهم خوفا له زلولية فاز من دانا قصيدة لبوقم نقدد لول waaye lum dee dee mat na fukki bayt ak juróom mbaa mu jege ñaar fukki bayt loolu bokk na ci li nga xam ne mbindum maam alaaji Abdoulaye la am na xasida bu def di ci marsiyaal nijaayam maam sëriñ Kellel Caam am na xasida bu def di ci waxtaane xéewal ko yàlla may bi mu sancee Tayba am na xasida bu def di def tawasul ci bàyyi Cheikhu Tidiane ak i maamam am na nazmu boo xam ne téere la bu maam alaaji def ci tasawuf tudde ko mutahirul qulub nekk na fukki faslu ak juróom-ñett def na ko mu téere ba am fukki buntu ak juróom-ñett yoo xam ne bu nekk maam alaaji mu ngi fay wax ki jëm ci yàlla nan lay def ba defaru mu ngi ko commencé yaquulu afqarul anaami turra li man yadfau anhu durra ibnu muhammadin kasiru zambi بسل نذير العلم ثم الكسب حمدا لمن وعد كل مؤمن أعرض عن لغو فلاحا لا يني ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي المصطفى محمد قصيدة لبو قمنا قدنا ترب تي الإمام الاجي بند مخدة العابدين بقنا الإمام بند مفتاح الأنوار ومنير الأسرار بقنا الإمام بند الأجوبة المفحمة bokk تي البر الأبر في معرفة بني بكر الأجوبة الياسينية عن الأسئلة الجوكية الأسرار الربانية في الحض على الطريقة التجانية بوبو تيري لمجة تالف تيري بوبو بيمكو يبند مونكو ديكتي مولانا شيخ إبراهيم مونكو ديل بند موي وخ مومام علاج باي دي بند بتيري بوبو جيخ تيري بوبو من جسناكو مونكو أمنا يتيري بني وخ نبزة طريفة كي خم خم تجويد كي والو خم خم ولف نينانكو شاد بند am na téere bu ñu wax dégg nga ay asila ak ay aju yoo xam ne bi mu demee Faas la ko yóbbuloon Sidi Abdul Karim bin ca Maroc ba muy ziyaara ji Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu niki noonu bind na al alxaraam wal xalaal min al ahkaami wal afaal def na téere bu ñu wax alwasaaya al aama boobu ibnu Qusam dajale na ko ci téere bu ñuy wax mufidul anaam wa munirul maraam mais maam alaaji moo bind téere bu ñuy wax alfathul akbar fi tawassuli bi ahli badar taalif na téere bu ñuy wax risalatun fi lfarq bayna talaaqi lbaayini walbat moo taalif alxisnu lxasin bissuuri rasin maam alaaji moo taalif fatxu rabbi lmalik ala asilati umar ibnu malik moo taalifit kayfiyatu ixyaai lmawlidi nabawi sharif loolu da ciy jàngale naka la ñuy gàmmoo am na itam haraf bu mu def tudde ko war ci arafi wa rabb qasida bu mu def ci arafi wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ak nak terem bi gëna siiw ala shaqawati naqidi bayati abil abbas nga xamne tere bobu li tax mu talif ko moy di moytandikuloo ku ñaan wirdu tijaan bayiko ko wane ne ku jël wirdu tijaan dugg ci tariqa tijaan bayag nga bayiko ko ab tijaan nga weddi tariqa bi maam alaaji ne loolu day firndeel na yow ku texee di nga te dootoo texe àdduna dootoo texe àllaaxira lii mooy ay taalifam